salaamaaleykum mbokk internet yu Rufisquois point info tey ngeen am ñu seen cinquième numéro émission ganu koor ñëwoon fii nii si Guy Mouride seetse ki nga xam ne moom mooy monsieur Mamadou Sy xam naa da ngeen may topp si biir rek ñu seetse ko mu wax ñu tuuti si moom ak li muy yëngatu. waaw mbokk internet yu info nuyu naa leen kon ni ma leen ko waxee woon rek tey ñu ñëw fii nii nga xam ne moom mooy Guy Mouride ñu seetse ki nga xam ne euh, moom mooy monsieur Mamadou Sy muy jeune leader boo xam ne kenn du ko présenté fii nii si Tëngéej. waaye ni may def rek mooy bàyyi moom mu nuyoog ak téléspectateurs yi. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur sa sant di leen nuyu yéen waa Rufisquois point info. waaw ñu gis ne eh, da nga taxawal benn mouvement est-ce que mën nga revenir tuuti ci mouvement boobu noonu. waaw euh, Mamadou Sy euh, ak ñi mu àndal dañu Créer un mouvement tuddee ko avenir Rufisque mouvement bi nag bi ñu ko créé matagul une année mais yàlla def na doon nañ instant bi nii ay ndaw yoo xam ne mënuñ ñu jëlee ci seen politique bi à Rufisque waaw euh, avenir Rufisque nag euh, du sama idée man euh, suñu idée la laay wax sax toujours parce que c'est une génération ce sont des amis qui se fréquentent ce sont des Rufisquois des jeunes ay jeunes qui ont ne changement lañ bëgg pour sen deuk ay jeunes yo xamné liguey lañ bëgg pour sen deuk ñoo juk créer avenir fisc. ñu mengok man vision ñu jël ma porter ma à la tête de ce mouvement depuis lors man ma nek ci kaw mais dafa jot comme ni may wax toujours dafa jot ñu ndaw ñi ñu nek au devant de la scène dafa nek dafa jot ñu ndaw ñi ñu mëne combat bi nga xam ne moo war a génnee tëngee ci lëndëm lëndëm bi mu nekk moo war a génnee tëngee ci salte bi mu nekk moo war a génnee tëngee ci niñ ko abandonné niñ ko bàyyee dafa ñaaw trop donc Mamadou xaarul kenn comme maa ngi ci avenir Rufisque képp koo xam ne ndaw nga rek nekk Rufisque aussi ñaan na yàlla ñu ñëw booloo doon benn pour jële fii li nekk Tëngéej looloo tax mouvement avenir Rufisque dugg ci seen politique bi di jouer les premiers actuellement à Rufisque. en tant que jeune ñu gis ne nga euh, sa daaray bopp est ce que mën waral loolu noonu. waaw euh, gëm sama bop rek parce que man bëgguma di langaamu ci ginnaaw politiciens yi bëgguma di langaamu ci ginnaaw ñenn ñi parce que waral ma samp sama sama bop ne damay dem damay dem ci kanam damay dem tamit ci bu ma waate nga parce que dafa am lu fi yàgg a nekk à Tëngéej parce que du yoon Tëngéej waroon na dépasser fi mu toll nii bien vrai que bon gis nañ commence y a des projets qui commencent à entrer xam nga Diamniadio ngi fii commencé changer bon am na yeneen ak yeneen yu fi nekk mais Tëngéej euh, dafa jot quand au moins ñu delloo ñu li ñu moom parce que Tëngéej du tey Tëngéej euh, lu yàgg la Tëngéej dafa bokkoon ci quatre communes yi. donc bu faites que bokkoon na ci quatre communes yi normalement ay français lañu waroon doon donc mais da ngay xool Tëngéej amul benn animation dara yëngatu fii Tëngéej Tëngéej du côté sport à part nawetaan bon yenn club bi ñu amoon comme ay Saltigé, dee presque ci côté football an bi ba handball boo fi des ak euh, basket bi boo xoolee ay club yu mel ni sporting dafa régressé carrément waaw ak yeneen yeneen bon TFC moo fi nekk actuellement loolu côté sport la boo ñëwee si infrastructure de stade Ngalandou Diouf la ñu am te stade jom Ngalandou Diouf sax laa koy wax stade boo bon répondre ci norme yi amul complexe sportif bu war a nekk à côté di mën a accueillir les acteurs di mën a accueillir les les les les joueurs et autres le monde du sport amu ko Rufisque amul salle de basket une ville comme Rufisque boo xam ne sport lay dund donc. bu ma doon dem tamit di jóge dem ci santé Youssou Mbargane moo fi nekk avec tous ces feebar yi fa nekk yi ma def feebar doxul ci benn côté donc il est temps au moins que ñun ndaw tëngee ji ñun doomu tëngee ji ñu génnee suñu leadership bi ñuy réclamer toujours parce que dañ tëngéej am na ay kilifa yi fi nekk tëngéej am na ay responsable mais dañoo ragal dañuy nekk ci ginnaaw toog dañ jug pour suñu dëkk Mamadou si loolu tax mu jug Mamadou si dafa jug pour xeex pour Tëngéej te incha allah dinañ dégg Mamadou Sy ci lépp loo xam ne pour Tëngéej la lépp loo xam ne pour Tëngéej xar kanam changé incha allah dinañ ko gis si mutu ak grâce yi si présidentielle yi passé est-ce que mën nga leeralal askan bi la moo waraloon loolu. waaw euh, le président Moustapha Guirassy qui ki mon ami sama xarit la sama kilifa la sama lépp la waaw moom laa njëkk àndal. en tant que euh, politicien je suis que confiance te confiance pour mon nekk ba euh, dafa am li euh, dafa c'est un Je bala may wax di Je wala di pour ak Je tamit damay wax sama je nekk muy donc je bi uniquement à Girassi c'était pour les élections présidentielles J'appelais on pour les élections présidentielles malheureusement on a été recalé suñu candidature jàllul bi suñu candidature jàllul tamit ñu taxaw bon ne duñu ànd ak la coalition gagnante man duma ak la coalition gagnante Idriss Seck parce que mon principe lay dawe mon gëm-gëm lay dawe man dama gëm ni grâce la donc du moment que amna na lu laal lu jege grâce yi rek te xam man sentiruma mako damay taxaw mo taxone ma taxaw ci élection présidentielle né non je vais pas battre campagne pour la coalition gagnante j'ai dit voter pour l'opposition bon yalla def na limi def le président Macky Sall a gagné les élections Nous féliciter ko diko ñaanal aussi yenn bi ko yalla tek yàlla na ko yàlla na oyof ci mom waaw looloo waraloon suñu taxawaay ci côté boobu noonu mais Guirassy c'est mon ami c'est mon c'est mon grand frère waaw c'est mon confident en même temps bon c'est mon leader waaw mais dafa jot tamit bon Mamadou Sy wane boppam tëngee ci te pour ça du ma ci xajal leneen boo gisee ma concentré wu uniquement sur sama mouvement avenir Rufisque looloo ko waral donc toute activité politique boo xam ne dafa laale beneen parti dama ko jël tekk na le ne avenir fisc uniquement avenir Rufisque waaw. bu ñu déggee bu baax mën nañ ne monsieur Sy Mamadou monsieur Mamadou Sy Tëngéej moo ko est-ce que mën nga ñu wax tuuti nan nga gisee euh, département Rufisque fisc jamono juñ toll. waaw Tëngéej euh, bon boo koy euh, actuellement on dirait que ces deux villes hein. bon am na côté ville bi côté géej gi nga xam côté bi côté bi nga côté centre de course côté côté HLM euh, et autres parce que terre bi mo diviser en deux parties actuellement et partie yo xamné c'est pas accessible day métti trop les embouteillages et autres ñun Tëngéej sonn nañ ci côté bobu noonu sonn nañ trop trop trop trop trop mais tamit bo jigee ci côté bobu noonu nga xol politique bi parce que sans politique bo c'est carte graphique politique ou ni actuellement ko ni mu y a d'un côté il y a les anciens comme on les appelle comme ay Albé il est à euh, son troisième mandat deuxième mandat de réclamer troisième mandat Il y a Mar qui est à son deuxième mandat de réclamer troisième mandat et autres waaw donc dafa am lu fi amoon quoi donc dafa am benn euh, benn lese aller bu fi amoon dafa am benn euh, ormal bu fi nekkoon non ay mag lañ xam nañ leen bàyyi ñu dox am non loolu daf dafa war a deñ parce que boo defee benn mandat ñaari mandat defoo say preuve yow yaa war a am fulaay retiré wu ku mel ni Albé maire est bi man su ma doon moom dinaa xalaat leneen lu dul naan damay laajaat troisième mandat parce que def fi lu nit ñi mën a gis nu mën ni mën a teg seen bët gis ñu ko il faut des jeunes yoo xam développement seen localité moo leen tax a il faut des jeunes yoo xam il rime avec la modernité dañ méngoog jamono ni muy tawee jamono ni muy doxee mais du ñoo xam bon c'est beneen système bi la te en plus politique dafa dafa soppeeku léegi politique du toog di xaar da ngay dem ci nit ñi il faut être accessible en quelque sorte amal nit ñi njëriñ nit ñi sentir seen vie ak cadre de vie que y a une personne qui est derrière eux qui est à côté d'eux waaw sans politique bi actuellement non lañ koy y a aussi euh, de l'autre côté il y a Mar aussi xam nga ñun ñëpp c'est dafa def dañ bon dafa jot quand même ñu ñaanal ndaw yi ñu ñu aller de l'avant notre maire actuellement Daouda aussi et c'est vraiment bon loo xam ne waruñu ko waruñu ko Daoud avec l'âge qu'il a, il doit aspirer à autre chose, quand même. Il doit aspirer à autre chose. plutôt que d'y nek ci ben ben ben paysage di nek ci ben ben système bo xamné mënu ci dara mom il se réclame de l'opposition donc bu qu'on développement teungeej moko taxone juk changer teungeej moko taxone juk day tek ay actes yo xamné ne day liggéey ak gouvernement actuel parce que lolu mo dépassé légui ba xolé forme de gouvernement bi ni ni ni ni le le pouvoir en place actuellement ni muy liggéeyee y les socialistes il y a autres qui qui qui qui sont auprès du président pour lan pour neen dañ bëgg liggéey réew mi donc bu fekkon mom daaw da liggéey tëngëj moo ko jukk du tok di xaar wala tok di sanni xeer wala di wax leneen ak leneen yoo xam ne mooy loolu day jéem am des projets pour Rufisque ut les financements indi que pour les Rufisquois ñu sant ci suñ bopp gis ni y a un changement qui se dessine mais depuis qu'il est là ñun gisuñu loo xam ne buñ ko xoolee dinañ dal suñu dinañ dalal suñu xel franchement parlé on a perdu presque cinq ans avec Daouda Niang et c'est vraiment malheureux pour les Rufisquois waaw. waaw ñu di leen fàttali ba léegi rek euh, yéen a ngi seen émission ganu koor tey ñu amoon fii comme invité euh, monsieur Mamadou Sy muy jeune leader fii nii ci Tëngéej waaye dama bëggoon rek ñu dem tuuti ci page pub bi après ñu ñëwaat. Sococim mi ngi leen di ñaanal kooru jàmm ak salaam. après ban appréciation nga am ci euh, gestion maire bi ak département ak conseil départemental bi. Euh, waaw euh, xam nga sànq maa ngi leen koy maa leen koy wax. Euh, c'est dommage hein? c'est dommage vu le monde fi mu toll actuellement ak fii dëkk yu mag yu bëgg yu bëri bëgg dem ak buñu ñu ce qui est en place actuellement bon euh, notre maire de maire de que ñun fenen lañ ko lañ ko xaré sans bi ni fenen la ko waa Rufisque waaye soxla avec l'expérience qu'il a le vécu qu'il a ñun ay conseil lañ ko don soxla ay ñaanam lañ ko don soxla man toujours lool lay wax da bëgg mu recevoir ma euh sumay dem euh, au moins sama am lu ko yobul yobul ko sijaada yobul ko satara, yobul ko ay marakis ndaw yóbbul ko mbaxana ne ko Mame Boye dama lay ñaan daal nga ñaanal ndaw yi ñu dem moo gën moo ëpp fulla daal ci mag moo xam ne da ngay nekk ci ay ndaw parce que monde bi moo toll foofu noonu c'est un monde jeune et c'est à la jeunesse de prendre li nga ñu jël li nga xam ne ñoo ko moom actuellement donc euh, nous euh, avons am une équipe nouvelle pour la gestion de la ville de Rufisque Nous avons yàlla ndaw ñi nekk ci Guinée. je vois la crème ñu mel un Papa Traoré ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci ginnaaw je suis confiant par rapport ak li ma gis actuellement ci terrain bi parce que ndaw yi dañ décider dañ bëgg pas jële fi li fi nek parce que li fi nek yalla qui fi Nous ne pouvons pas fi jëlé mais au moins que ñu xam que que la jeunesse veut que ñun dañ bëgg dañ bëgg indi suñu pierre à l'édifice donc pour ça nous seen ñaan lañ soxlo ak lenen en plus bon y a une équipe qui est là depuis euh, des années et les refus que ne vit pas Tëngéej doxul te amul ben animation dara dara dara dara dara amul fenn bon man le lay wax moy le maire depuis qu'il est là qu'est-ce qu'il a fait à Rufisque est-ce que qu'est-ce qu'il a fait ban jéego la daaw dañaa tek pour Rufisque fa lañ dégg daaw dañaa à Rufisque on Rufisque ne vit pas Tëngéej dafa dafa dé et c'est dommage dafa dé te loolu ñun ndaw yi ñoo war renverser don bob, non, ñun ñoo war a ñëw indi leneen donc te indi leneen day tàmbale nga jukk dëggal sa bopp samp sa ne damay dem changer loolu noonu donc ñuy ñaan rek ngir yee bon mun a am fair play man laay wax quoi jarul siisu ne bi dafa siisu ñeneen ak ñeneen jarul ñuy siisu nañ dawar fair play rek xam que c'est le monde qui évolue c'est la vie qui est ainsi faite donc ñoom am na ñeneen ñu fi nekkoon bien d'avant eux donc nañ ko rafetal rek ñu pousse ndaw yi ñu dem dem ci kanam ñoom tamit bon nit tamit da nga ñaan yàlla évoluer da nga ñaan yàlla avancer doo ñaan yàlla toog fenn dafa dëjj rek waaw mel paanu mbalit non da ñaan yàlla avancer tuuti waaw loolu laa amoon lu may wax ci euh, l'équipe dirigeante à Rufisque waaw nañu yeesal daal nañu indi lu bees buñu tok c'est révolu nous sommes dans dans un monde où ça bouge il y a modernité le développement ay idées nouvelles Le euh, monde concurrence lañ nek dans l'archaïsme lo xamné da ngay c'est l'innovation la technologie da ngay dugg côté aéroport bu njëkk bi yoof noonu na benn tableau lumineux bu fa nekk même avant moom sax ay Cambérène nag yooyu noonu tu sens que sa vie dug dëngëj da dugg y a rien dafa dee donc te nag bu fekkee tamit am na ay mag ñoo xam ne ñoo fi nekk moom moo xam ni bon day gën a day gën a feebar rek te maladie bi fajuñu ko donc pour faj maladie bi nga xam ne moo dal tëngëj il faut que ndaw yi jug ko il faut que les jeunes se lèvent et portent ce combat-là mener ce combat-là C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux élection locale yi suñu kanam nii euh, la lañ mën a wax waa tënkee que juñ tool nii euh, ndax mën nañ leen wax ñu séentu monsieur Cissé candidat yam déet non Mamadou les élections locales pour développement man lu développer tëngéej moo ma ñor lu tëngéej dundaatee moo ma ñor. avec ou sans les élections te est-ce que les élections dinañ am cette année-ci c'est la grande question qu'il faut se poser parce que bon amna luy xéñ dal ngeen bal ma si expression bi amna luy il y a quelque chose qui se prépare ñu ñaan yalla baña yegg fofu noonu mais élection yi gëmuma en 2019 dina am mais ñun li ma wax li ñu wax dafa dafa Mamadou Sy ak ñi mu àndal ñu sa di mooy tëngëj na soppeeku tëngëj na am beneen xar kanam waaw man élection locale bu amee damay samp sama ndënd damay samp sama ndënd à l'est su ko jaree ñu dem ville loolu laa gëm parce que ñun ñoo ne dañ am lu ñu bëgg mu changer à Rufisque donc ñun ñooy jukk dem uti loolu dem seeti loolu dem dox loolu dugg ci population bi wan leen que ni que refisque peut compter avec ses fils lol la rek. wa ñu ñew touti si manam semence bi nga xam bari na trop tënkee ci jeune yi ak mbirum banditisme ban ban xalaat nga si doon joxe refisque waay. waaw euh, ci euh, bon Tëngéej dafa am nak comme sank manke wax ya di moo Tëngéej dafa am ay ay ay ay feebaram te Tëngéej feebaram bi gën mak. mag et c'est connu de tous mooy l'insalubrité Tëngéej dafa salte au temps de du grand mère, l'unique mère ka si a connu Mbaye Jacques danaan jël xale yi jël ndaw yi di leen liggéey loo ñuy nettoyer canal yi ñuy nettoyer mbedd yi voilà un Rufisquois Mbaye Jacques Diop le grand Mbaye Jacques Diop respect à lui. Mm-hmm. Ndiawar jéemoon na ko fi Mamaya il a essayé mais le gars qui en place gisuma lu mu fi def te problème bi mu bi ko gën a sonal mooy insalubrité insécurité parce que Tëngéej dafa lëndëm xoolal pot lamp yi ngay romb Tëngéej lëndëm éclairage zéro te fu que bu lëndëm kay euh, insécurité na na na na na na na ci dëkk yi sonal plus dëkk bi xat xat option moo am route nationale bi boo mënul nationale péage bi péage bi 800 francs 400 aller 400 retour donc amna luñu wara wax pour Tëngéej waaw ndaw yi ñu ngi chemin man dama né gis nga cette euh, nouvelle génération naissante là ñeu avec des idées man je dis il faut créer des emplois gis nga municipalité bi la mairie peut créer des emplois peut créer des emplois et comment créer des emplois nañu créer une agence mais yomb na agence de l'environnement et de la sécurité comme ASP yi ni ñuy taxawaaloo ci dëkk bi noonu mais une gestion locale jël ay ndaw yi nga xam ne ñu ngi fii tuddee leen bon mënuñ ko mën tuddee ñu jël leen dugal leen ci koñ yi def ko ay ay ay ay secteur ay zone comme wala def ko ay famille ça dépend rek famille comme aar Guy Mouride famille Colobane famille Arafat famille ut quartier bu nekk ñu def ko ay famille famille si biir mu am ay ay ay ay ay ay ay chambre ay kër ay néeg comment ay néeg néeg yi moom muy ay section yu ndaw mu am benn une bonne coordination am ay liggéey ñu jël ndaw yi nga xam ne ñu ngi taxawaalu foofu noonu jël leen oto yi ñuy taxawaalu ci mbedd yi pneu yi di salte bi débris yi nekk ci mbedd yi désordre bi nekk ci mbedd yi mais nga nga encouragé jeunes yi képp koo xam ne def nga temps wala liggéey nga temps di nga am prime temps mais dëkk bi dina am ordre tuuti en plus man li may ñaawlu mooy loolu aussi maire yi war nañ ci bàyyi xel man munuma concevoir lu mel ni ay tata di dugg ci koñ transport en commun dugg ci koñ transport en commun place am garage la garage ba garage la war a yem boo duggee ci ville garage la war a yem ñu ngi rey taxi yi gis nga emploi moo tax euh, politique dañ koy si xoolaat ça le préfet et le maire ñoom deux ñoo waroon xeex loolu noonu liñ yi dugg ci koñ yëpp ñu arrêté ko nañu yem garage taxi yi mën a liggéey xale yi léegi taxi yi ñëpp taxi yi kenn yoratul taxi léegi ñëpp daw nañ si transport en commun yi si ligne yi alors que Rufisque li ko daan li ko daan li ko daan caractériser bu njëkk ba mooy juuti ba la moo amoon garage fa ngay fa ngay yem gars yi jël taxi wala moo ñëw ville boo ñëwee ville dina am taxi euh, Colobane am taxi Bargny am taxi Yène am taxi loolu économie bi di tox nit ñi di mais loolu amatul permettre nañ liñ ñi dugg ci biir koñ ah, ñu rey trans euh, transport bi en quelque sorte mais loolu yëpp dañ ko war a xoolaat. en plus euh, te euh, ñaawlu de la mer l'érosion côtière de fou, doy dépasser cadre municipal dem cadre côté étatique parce que suñu gouvernement signé accord de pêche avec les Chinois et autres du suñu suñu doom yi nga xam ne dë tëkk tëngëj dëkku dëkku dëkku dëkku pêcheur la amatuñu ay jën muy obligé jeunes yi ñuy dem ci yeneen frontière ngay dégg rey nañ fi doomu diw rey nañ fi doomu diw ci yeneen frontière ci ci ci ci waaxi jàmbur au ñu protéger suñu pêcheurs yi bato yooyu nga xam ne dañ ay gros kii lañ ñu ñu repousser leen mais à coup de milliards mais dañuy yàq dañuy as ay ngan di machine yu mag lañ yor ni ndaw yi yoosi yéeg yooyu noonu xam nga c'est que nañu nañu bon man leen laay wax nañu joxante cër quand même nañ joxante cër delloo restaurer les valeurs li fi amoon bu njëkk ba c'est très facile mooy le respect et le respect ça commence par l'engagement nga respecté ko nit amul lu dul kàddoom forme boobu doon na naxembaay dafa jeex dafa jeex su ma déggee euh, notre président Macky Sall di woote appel dialogue au parti politique wala dialogue national ban forme bu ñu ko mën tuddee man je me dis

ni de dialogue ni d'autres choses pour la faire donc bu bëggee décréter benn affaire il est décréter facilement il a ce pouvoir là c'est lui qui gère l'exécutif le pouvoir judiciaire le pouvoir législatif il est le chef suprême euh, ne sais pas des, armées et autres actuellement avec la suppression du poste de premier ministre il vient en tant que bourg en quelque sorte moi boum moi Boumi donc amna yenen yeneen gis nga naxi mbaay bi lañ nañ cieur en quelque sorte On respecter les sénégalais ñun vision une lañ am Té élection locale yi dafa am lu ma man euh, presque 42 des sénégalais ont dit non peut-être gars yi gagné avec 58 mais il y a 42 qui ont dit non 42 lecture bi faut lañ ko war a pourquoi Ce fait qu'on y avait, y avait 25% et autres, j'aurais dit, waouh, c'est la majorité absolue. Mais il y a un problème. Donc, nous avons dans le mérite plus que le sort qui lui est réservé aujourd'hui. Bon, euh, sur le plan étatique, le gouvernement, il n'y a pas de fils de refus qui sont représentés là-bas, à part les deux poches

message bi jàll directement mu doon dialogue direct mais affaire politique naxe mbaay fi lool mo jeex donc nañ jox nit ñi cieur jox sénégalais yi cër jox Rufisquois yi cieur tey nañ liggéey pour suñu dëkk waaw lool la rek. waaw ñu gis ne ñoo ngi seen jeexantalu émission ganu koor xam naa lu ñuy def rek mooy bàyyi euh, monsieur si kàddu ji moom mu wax ñu mot de la fin. waaw euh, mot de la fin bi euh, damay woolee les Rufisquois toujours nuñ jukk liggéey pour suñu dëkk ñun ñoo mën a changer Rufisque du keneen mooy ñëw liggéey ñu Rufisque donc nañu jukk liggéey suñu dëkk te euh, may delloo sama kàddu ci ndaw yi ne leen nañu nañu nañu nañu nañu jàng nañu nangoo jàng ñi toll ci jàng nañu nangoo liggéey ñi toll ci liggéey danañ dellu seen waajur yi dañ dem tarbiyu seen waajur yi ñu ñaanal leen solution baa ngoogu secret baa ngoogu jàmm yàlla def lu baax di wax lu baax te yéen de jàmm suñu biir jàmm sax Sénégal jàmm law Sénégal loolu lay wax comme dernier mot nañu liggéey suñu dëkk nañu liggéey Sénégal te nañ dellu ci waajur yi nañ dellu ci yaay booy yi nañ dellu suñu papa yi loolu mooy suma dernier waaw. mu nekkoon seen émission ganu tey ñu ñëwoon fii nii seet si ki nga xam ne moom mooy ma Mamadou Sy. nous am contentement trop si recevoir bi nga recevoir nañu ko ñun ñi nga euh, le refuska.info point mu nekk premier site information bien. nga mon ne fini nekk si Tëngéej ñu di leen joxaat dig daje rek si un numéro seen émission ganu koor di leen aussi numéro service commercial bi mu 78 320 75 42 merci beaucoup ba beneen